comme ni ko Cheikh bam Bamba waxee rek ci benn téere bu ñu wax Matlabu Chifa yi nee na wali naadima aydan zaadahu llahu chifaan wa faydan sëñ bi poète la woon shaair la wala naadim ñi jàng français danaan le poète c'est celui qui voit des choses là où l'homme du sens commun n'en voit sëñ bi lool la gisoon ba wax ci benn téereem bu tudd axiru zaman ni haada zamanu xam nga haada ci arab haagi dégg nga mooy prono démonstratif ismu ishara haagi haa u tanbix la bu ne haada rek de wane ni bi gisone na jamono ji à l'époque haada zamanu la waxoon axbaxu zamani mu amna jamono jo xamé ni si dina ñëwi mooy gën a yées jamono ji ci jamono yi manam cette époque est le est la plus pure de toutes les époques ñu ni ko lutax tax ni li kasratil asiyaani fil buldaani day bari ño xamé ni si dañuy lancé wu sen vie di def lu bon et lu bon nak bu bari ci dëkk dafa am lay am moy li kasratil amraad day bari ñu feebar feebar nag bari na waaye du yam rek ci feebar waaye waaye wal asqaam day bëri ay épidémie épidémie bi gën a marqué ci jamono mooy coronavirus kon sëñ bi gisoon na ko te épidémie bu bëree lan mooy am dégg nga wa kasratil dégg nga dégg nga mun nañu wax ni mawt day bëri ñoo xamee ni si dañuy faatu te boo xoolee feebar bi ñi mu rey bëri nañu kon loolu sëñ bi gisoon na ko dans les années dans les années yi nga xamee ni ñëwul woon moo tax sëñ bi nag jékki-jékki maanaam bi mu gisee loolu mu daal di joxe benn ouvrage bu ñuy wax matlabu shifaa yi matlabu shifaa yi xam nga talaba ci arab mooy sàkku matlabu shifaa yi mooy mooy la quête du remède mu ni haada matlabu shifaa yi dégg nga li tawassuli ilallahi bil mustafa lillahi taala bil mustafa mu ni feebar mi ngi ñëw mais dinaa leen jox benn téere boo xamee ni si boo leen ko fonkee feebar bu fekkoon ci yéen dina leen faj kon am nañ yaakaar ni ci màggal gi yalla bi nga xamee ni moo fi indi waaye moo ko fi jele, a jëlee parce que fi mu toll nii kenn gisatul remède waaye Cheikh Ahmadou Bamba joxe na remède wa remède boobu nag day ànd jang, jàng parce que bo demee ci man sëñ nena, nee na man li durri wal buxsa tanal xas wa tanlal jiilu yaa mu taallimu Sëriñ Sam Mbaye rahimahullah traduire ko ni ô oh, le chercheur du savoir sois toujours patient devant le mal et la tristesse pour que tu dépasses ta génération kon sëñ Tuubaa dañoo incité ci

waaye tey boo gisee sëriñ Muntaxa dégg nga Mbàkke di ñaanal yàlla wa nasara wane na exemple gis nañ ko mu masque kon ñu wane ni maanaam képp koo xamee ne si yaa ngay dem ca bërëb bu sell ba comme xalifa bi ki nga ni fi Seexul Xadim yaa ngi dégg ah moom mi ni man man man si Ahmad Bamba damaa nekk li Mustafa nawaytu dégg ma maa yu jaddidu sunnatu ahmadu Nek koo xamee ne si mooy mujaddid mooy rénovateur ñu gis ki nga ni mooy xalif général des mourides takk masque ñuy wax ni ñun taalibe yi ñiy war a dem nañ gën a góorgóorlu bale les mesures yi nga xamee ni mooy loo xamee ni si kenn xamul lan la ñu takk masque li ci des nag ñu àggale ko comme ni ko borom Touba bëggee.